billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim suma salaatu wasalaamu ala asrafi almursalina sayidina mawlana muhammad ibnu abdullah wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama taslima wa radiyallahu an cheikhina wa ustaazina wa wasilatina ila rabbina abil abbas ahmad ibn muhammad saalimi tijaani radiallahu taala anhu wa ardaahu wa ana bihi amin mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ana dem moom sànni ay xeer ba pare génn dem yoonam ah, sa bopp dana la dab balaa diwoon yàlla nga séetal waaw anamu sax dafa génn Moussa waaw ah, dem na moom kenn xamul waa fan la xam man sax xam nañu waa Thiès la waaye moom kenn xamagul fu mu bokk ba léegi fa tabaarakallaahu li am solo si kàddu yëpp yëkkati na ko yàlla yàlla barkeel eh, yàlla yàlla dëgëral làmmiñam ndax arab day faral di wax ni xayrul kalaami ma afaada wala xayru kalaami ma qalla wa dalla ah, waxam ji li muy gàtt gàtt ay njëriñ rek la ëmb euh, xéewal rek la ëmb mu ko doon décortiquer wala ñu koy commentaire mën nañ cee fanaan te du jeex euh, waaye nag yonent bi moo toll noonu euh, ñun yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu yóbbaale géew lamma daa allahu daa'ina li taatihi bi akrami rusuli kunna akramal moom yonent bi moo génn rek doon première yóbbaale xeetam it ñu doon première kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar kon xayru ummati googu mënuñu see boole suñu bopp yonent bi moo ñu si boole ndax dañuy faral di wax ne xaj ngeen baal ma si tur bi am kilifa bu baax moo waral muy dugg avion xaj ko bàyyi woon jëmmam lu jege aéroport waxuma lak dugg avion kon bu dee jaar avion euh, traversé aéroport yi di dugg si avion yenn saa yi sax ñu dugal ko première classe kon loolu am kilifa gu baax moo ko mën a maye te ñun nag suñuy kilifa yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen kilifa yàlla nee na jarut ngeen di sonn si pour ma bëgg leen jarul ma ngeen di sonn pour ngeen yëkkatiku si ay maqaama jarul ngeen di sonn ngir seeni aajo di faju mu ne ko noonu ñuy def mu ne bëgg leen yonent bi rek bu ngeen ko bëggee seen biir xol ma bëgg leen jéggal leen seen bàkkaar ëllëg ma dugal leen aljana qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim xubutaaha xaalata laxmi wa izami wa damma duna rayaahi la Cheikh Hadj Abdoul Aziz waxoon sama cofeel ci yonent bi sallallahu wa sallam dem na ba jaxasoog samay yax dem ba jaxasoog sama deret dem ba jaxasoog sama xol ba foo làmb si man rek cofoolu yonent bi mooy daw si man na sax fu muy wax ne aali juuni hmm? bii fa shifaaw shifaa yi mu ne bu leen may faj bu leen ma jox sa paracétamol bu leen ma jox Nivaquine bu leen ma sampal ay biteel comme ñoom Adja Ndeye Fatou rek tag rek ñu takkal la biteel waaw mu ne moom taggal leen may yonent bi rek bu ko taggee rek sama xol fiix sama xol féexee sama jàngoro dañ kon loolu tolluwaay la. jazakumullahu kooku nag mbokkam bu baax bi Cheikh Sadou Habib moo ko feelu muy way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko huwa allazi uhtiya ma yashaa'u wa misluhu lam taliduhu nisaa'u waaw mu ne koo xam ne daal l'homme parfait Médinatul Munawwara rek nga koy fekk borom bari yéen war te nee nañ ma bayna qablihi wa rawdihi janna waaw bu ngeen bëggee xam palaasu aljana si àdduna da dem diggante min baro yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fi nga ko tëddal sëriñ alaaji nee na boo fa taxawee rek di nga yëg fraîcheur boo xam ne dangay xam ne fii moom yorul climat climat àdduna boo deful ndànk sax nelaw yàlla na bu mu ñu ëmb yàlla na bu kenn yàlla nañ dem ba ziyaare ji moom sallallahu alayhi wa sallam ah, mbokk yi ku guddee doo guddal ah, te waxtu waa gi jot ñu ngi war a dem siwaat si gàmmu gi façon yi ne tagg bi sallallahu alayhi wa sallam ba bët set ñaan yàlla ku fi indi aajo yàlla yàlla faj ko ku fi indi wéré yàlla yàlla saafara la ah, jigéen ñi nga xam ne bëgguñu wujj yàlla na buñ am yàlla na buñ am waaye góor ñi bëgg a yi itam yàlla yàlla may leen barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ ñu ngi lay duy di la zigaar di la jox sa wàccuwaay tabaarakallahu yàlla yàlla dëgëral la yàlla yàlla taxawal la daa sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bësam bii bañoo si dara lépp dañ koy def ngir yonent bi sallallahu alayhi wa